télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu animal ngir a saytu sama mi dundee. teew fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. nga mën a jaar jaar. danga ko seetaan bu dara raw. Mm. visibilité dinga ko am promotion dinga ko am. nanga wane sa bopp ci émission jaar jaar mi nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñu mooy sunu télé Ladoum TV di fa am béto fii ma jaar animal fii ci Ladoum TV Ladoum fa am béto édition foire internationale du laadum fii ci box numéro 29 Ousseynou Niang moo fi nekk bergerie Al Maktoum ñëw nag def exposition bu doy exposition boo xamante ni maal bi fi nekk macha allah mi ngi jóge ci loxo champion bu mag champion bu mag a mag macha allah ci élevage euh, ci tour waaye nag xale bu ndaw moo ko daal di jox li nga xamante ne moom mooy maal bi mu mel ni nag jàppalante la ci seen biir bergerie sans frontière ak bergerie Al Maktoum nekk benn bergerie boo xamante ni ñaari bopp ñoo ci nekk. ma nuyu la baax Ousseynou. waaw ñu ngi delloo siyaar Djiby Kandji di nuyu télé bi nga xam si ne mooy Ladoum TV yëpp di kontaan seen liggéey bu baax a baax a baax. aywa Seydou mu mel ni nag vraiment ñëw nga ci euh, bi mooy sa première exposition. non non bii nag nekkul sama première exposition yaakaar naa bi mooy sama quatrième exposition voilà voilà. macha allah mais nag mu mel ni vraiment bokk nga ci ñi gën a taaral foire bi ci exposition bu rafet waaw ñun dañuy góorgóorlu rek nekk ay ndaw di góorgóor parce que xarit suñu passion la chaque jour dañuy bëgg saa yu ñëwee rek du ñu yées si suñuy morom daal dinañ bokk ci xam nga ñi nga xam si ne dañ leen ràññee daal voilà. box numéro 29 la nekk Bergerie Al Maktoum nga ñëw nag indil ñu benn maal boo xamante ne macha allah kii mooy kat. waaw kii mooy rafet njortu nekk euh, doom ci bay na euh, yaayam nekk doomu teraanga quoi voilà. yaay ji nekk doomu teraanga waaw bay na nag moom moo jëroon meilleur jeune mâle fila fii nga xam ne ne fii la ñëw tey. papaam ba première première euh, bi ñu defoon papaam moo ko gagné woon moom mu ñëw nag représenté baaj fii indi euh, quinze mois di dugg ci 16 mois deuxième euh, deuxième fila représenté fii bay na quoi Nazer jox moo ko nag mu nekk doo mu nekk doomu teraanga waaw macha allah vraiment mu nekk euh, mal boo xamante ne day doog dugg juste kon ci espoir. voilà day doog a dugg juste ci espoir ndax bi mu foqee jeune mal yàggul quoi waaye bi mu foqee yàggul. yàlla yàlla barkeel ku baax mais nga ñëw nag indaale ko ak ay euh, yu doy waar macha allah ku ci mel ni femelle bi mooy kan. waaw kii nag euh, nekk doom ci kii Massac Massac moo jur papaam bu dee côté yaayam nekk sët ci Ilias mooy Ilias kii ma def ci baar bi bu dee côté yaayam Ilias la bu dee côté papaam Massac quoi muy sët ci Ilias ak roi Bachir voilà. mu mel nii maa ngi gis benn añel bu doxantu noonu jàpp ko benn yoon ki mooy kan. waaw kii sama soxna laa ko tuddee madame Niang waaw moom nekk ci doom ci Nelson. Nelson euh, nekk doom ci kii neneen euh, kaar bu Pa Cheikh Diop si Timboul neneen kaar boobu nekk doom ci magistrat moom bu dee côté yaayam tamit euh, sët ci Masacc ndax pen doom Masacc bi ma yoroon moom moo ko jur te doom Masacc doom Roi Bachir la moom bu dee côté yaayam Roi la bu dee côté papaam magistrat la voilà. mi ngi ci ñaata weer moom. waaw kii mu ngi dugg si 6 mois nag mi ngi dugg ci 6 mois. croissance bi moom macha allah mais six mois yi moom matagul ci foire bi la koy amee ci biir foire bi lay amee six waaw. mais ba tey mu mel ni euh, indiwaat nga yeneen femelle jàppal ñu keneen ñu xool. Ousseynou kii mooy kan. waaw kii mooy Margot kii ba tey li ngay wax foofu nii bergerie sans frontière ak bergerie Al Maktoum ñoom ñaar benn la pour wane ne wax ji ngay wax foofu rek mooy firnde fii parce que kii jamono yi Papa Dame bi Nazet di yor Papa Dame mu nekk fi ba confirmé après ci moom ci la ci la ci la juddu quoi doomu papa daam la papa daam nekk doomu menke bu dee côté yaayam euh, kii la Birahim ak góor gi ndax dama yoroon benn doomu mu boo xam ne Birahim la ak góor gi moom moo jur côté parent am quoi la waaw bu dee côté papa menke la menke papa daam nekkoon benn doomu menke boo xamante ne li mu doon def ci doom macha allah aywa na ñëw beneen femelle boobu kooku mooy kan. waaw kii femelle bii nga bàyyi sànq moom moo ko jur moom euh, moom moo ngi nekk deuxième portée moom. kii nekk doom ci roi Bachir moom euh, sëtu ndaw joxoon na ma benn doomu presse presse nekk doomu kii roi Bachir mu jur benn mu jur ko benn doom booy badu bu nekkoon ci si ndaw muy magistrat après ma récupéré woon fa benn jeune mâle bi mu ñëwee nag laa ko jox doomu papa dàmbale après moom ci la ju ci la ci la ko kii quoi waaw. bu dee côté papam roi Bachir la woon tamit mais bu dee côté yaayam tamit menke la quoi ndax doomu menke bi nga wax sànq moo ko macha allah mais mu mel ni mbote am na ku ko ci indaale kii mbote bi kan moo ko ci jur. waaw mbote bi kii mooy taawu rafet njortu moom ak euh, kii ma la doon wax daal doom ma sàcc boobu noonu ñoom ñoo ko jur moom mooy taawam ci bergerie bi waaw am na fa nag yeneen yoo xam ne si ne commencé na wàccee quoi mais pour l'instant kii mooy taawam. mooy taaw waaw. macha allah en tout cas exposition bi rafet na lool mu mel ni nag euh, instant bi yaa ngi ci dynamique bu doy waar euh, képp koo xamante ne bëgg naa ñëw ci bërëb ba adresse bi ak numéro de téléphone bi. waaw ñun ñu ngi dëkkee jàmm gan Sicap Mbao mooy tali fora bi tali karo boobu noonu avant nga yéeg pont bi maam jaar bi maison de la femme bi numéro téléphone bi mi ngi nekk 77 927 82 12 wala 77 128 22 73 boo ñëwee ba fora rek foo ñu wooyee rek dinañ la guider ba nga ñëw ci bergerie bi incha allah. cas macha allah exposition bi rafet na bonne continuation aussi. waaw ñu leen di jaajëfal yéen waa Ladoum TV yëpp di rafetlu seen liggéey wax dëgg yàlla macha allah mention spéciale ci liggéey bi dama koy siiw des fois su ma nekkee ci ci internet bi mais wax dëgg yàlla ngeen di liggéey liggéey bu doy waar ci xar yi li leen ñaanal tamit xam nga liggéey bi fi ngeen bëgg a yóbbu yàlla ko suñu borom eggale ndax li dafa métti quoi wër sa temps yor sa caméra fu ne nga dugg fa di interview te lépp bëgg mu jaar yoon rek la kon ñu ngi leen di jaajëfal seen liggéey bu baax a baax di leen kontaanee jaajëf ji bi kontaan nañu. aywa Al Maktoum bàyyi leen ko xel saa waay mi ngi ci dynamique bu doy waar. mooy télé bi bégal sama askan.